asalaamaaleykum adduna asalaamaaleykum New York City xew-xew bu mag ñu nekk kañ la le septembre ak la 24 septembre dîner de gala bu mag a mag a ñu ngi invité ñëpp Gambiens yi Sénégalais yi bis bu mag ñu war cee ànd ak nag ay ndaanaan sama yaay Daba ak sama papa Salaam ak Meeru Njaay Gambien boobu ak man mii seen doom Géwël Mbaay nekk fii Amérique bis boobu nag single yu dina genn pas de danse nga xam ci gëjoon fecc waye pas de danse gëpp yëpp a di wax ñëpp inshallah rabbi wa New York dañ fa jox dig dajé le 23 ak le 24 nako ko paré wa ñu war ci àndal nag wa CSD di gudd gu mat gaay paré pare leen ko té seen dom giwol bu ñëw di ngeen gis yeneen facette bongo yi dina ñëw. Sénégal képp ko xam-xam ni sa seule richesse. Moi la paix sociale moi jam partout nos voisins fépp fépp safara fay tak tay ben nit Sénégal ne mom sénégalais la mo gëna intègre mo a mom existence am dañ le code pénal amutul loi même notre respiration Sonko récemment dafa organiser ben co benn point de presse. en 2024 damay nekk candidat à l'élection présidentielle wooy Macron ak Macky Sall dañ ma bëgg a teraloon xam nga ku yuuxu yaa xam lu tax nga yuuxu li ñu toppee Ousmane Sonko c'est des faits yoo xam ni qui sont pas qui sont passibles que devant la chambre criminelle parce que au Sénégal maintenant viol viol dañ ko criminaliser te dana woon dana woon bu ñu ma wooyee man député là, mais li nekk sama kaw muy muy unité parlementaire suñ ko dindé à la minute près mu wuy ji bu len faté ne amna ay députés yu nek affaire ñu len di jiiñ ni ne yow né passeport diplomatique mais dañu enclenché la procédure judiciaire c'est les députés de la majorité qui ont voté qui ont qui sont majorité à l'Assemblée nationale ñoo voté ñu jël ñoñu dugal leen ci kasso récemment Sitor Ndour qui est responsable de l'affaire ko ko jiiñ viol ñu jël ko defeere ko placé mandat de dépôt dugal kaso bu ñu nangu en 2024 quelqu'un bo xamni dañ na day yakatan xalé yi mu ne moom kenn du ko jugé parce que moom moom il est hors la loi c'est-à-dire que moom bu ko neexee mu yeewu ne gars yi dem leen pale ku naan nit ñi dem leen pale te nga xam ne ku fay pale ku fay dem ci jàmm sax yombul nga ne xale yi dem leen pale en tout cas nous soutenons Lat Diop qui l'accompagne dans sa politique nous n'accepterons pas que Sonko se présente à l'élection présidentielle bala moo nekk même ne serait-ce que pour son image personnelle na accepté dem procès comme moom lii mu am nii wax na accusé na ku nekk mais na leer ñu ko dans des conditions régulières ba Sénégalais yi xam moom la mu doon wut ci salon de massage bi ndax am liggéeyam moo doon metti mu mu def fa wala doon woon sàkk dafa doon sàkk plaisir donc tant que loolu il y aura pas d'élection en 2024 te li ma xaw a jaaxal ci moment bii mooy le silence d'une certaine société civile pourquoi il demande pas à ce que procès mu am nous allons donc lancer une pétition pour demander aux aux Sénégalais qui sont d'accord à ce que ce procès-là et qui l'exige de signer la pétition. On ne donnera pas ce, pays à quelqu'un qui est poursuivi, poursuivi pour être de viol. Ça, nous devons nous moy froid 2000 kuko gisul nga sunu liggéey ni ci li nga climatisation installation la maintenance réparation remplacement wala électricité bépp njàqare bu ngeen munti am de seen kër wala si seen liggéeykaay Froid 2000 moma ci doy. mun nga jokkoo ak ñun au 77 554 54 49. Nous mobile fu ngeen mënti ne ñu teew fajal leen seen soxla climatisation moo xam installation la maintenance wala dépannage amul benn marque bu ñu ci jaaxal bu leen nangooti di confier n'importe qui seen climatiseur nous sommes une équipe d'experts jeunes motivés et très dynamiques. 3 2000 téléphone 77 554 54 49. Nous sommes à la cité Guilimbaï Dakar. Vous pouvez également nous suivre dans nos différentes plateformes digitales.